abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am ay xibaar. Euh, dépendre yatt yi position te kenn ku ci sàggane sab guerre rek maanaam guerre bi mën naa tàbbi géej mooy jëmmi population bi suñu toogee seen kër ne duñ gunge ci Ousmane Sonko ci mu dem muy yoon état bi na koo tëralee procès ko nu mu ko neexaate ko kon ñooñu faaw dañoo war a dem gunge ji ko état bi ko gis mbooloo mi ragalee ko ndax abi jeexlin kat loolu la waxoon abi jeexlin ne génn na ngir aar ñu gëm xulay ba ñu ne ba ca yoon ba ñu ne waaw léegi eh, Abu Sufyaan ne ah da ngeen doon aar seen alal ak seen i ak seen i seen ak seen i ak seen i yére ak dëpp leen ngeen ñi mucc naa ci Muhammad akum pexeem Abu Jahl ne kenn dëpp dañuy dem ba Badar mbooloo mi affiché woo foofu gis ni déggunu ñëpp yaa ngi dégg mm-hmm. waaw xam nga moom dèjà dugg woon ngir xeex yaa ngi dégg mm-hmm. yéen itam jóg leen ngeen affiché wu ñëpp gis leen yéen ñi nga xam ne ñoo yéen a mel naay bugg ci Sonko mooy ñooñu bu ñu bàyyi seen liggéey du baax léegi yi ñuy def maanaam mooy tax ñu jàppale nañu ndax xale yi bi ñuy manifester ci mbedd avocat yi ba ñu demandé bu avocat ñëw ci naa bañ comme moom ña ngay def li wax maanaam seen stratégie judiciaire loolu baax nañu koy teg ba tey avocat bi ñu jëlee ci français sax stratégie judiciaire lay doon avocat bi lam leen satisfaire leen rek la mooy day demandé renvoi te tey bu ko demandé mënuñ ko ko bañal force dañ koy accepté beneen ba ci doole mooy ku international te bu boobaa ci droit la koy teg te mënu bëre boo ko teggee ci droit am na relation may na ko mu weeje mboolem si sénégalais bi seen der nga yàqu kon loolu baax na léegi nag ba ca ko mooy ki nga xam ne koy bis nepp ma man <coughs> naa tabbi géej ni mu waxee ñun dañuy continuer dañuy ñun dañuy ci liñ nekkoon dañ ci sax dañuy wujj na ngeen ñu gunge loolu lépp mu continuer di di di di di jël ay position bi dëggal di wéral kooku yi la nga cay gis la nga cay dégg moom itam bu lam doon war a def a def mooy li muy def bu defutoon lii muy def di def neneen mooy ñu koy ko apprécier discours yi wooteel jàmm nii naa na bëgg ko ko lànkale leen dara buñ bëggee jàmm nañ wax ak kii waxee woon ne man nga bu dakkalee loolu rek jàmm na jàmm na ñooy bu dakkalee loolu bu Ousmane Sonko indiwut jàmm nañu ñu booleeg moom léegi tey léegi tey ñu teg ko ci bàndam